Abonnez-vous sur sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça se met bien. am ay xibaar. daleen ak jàmm seen chaîne bii FTTV Sénégal Qui est Juan Branco pour qui avocat au président Ousmane Sonko qui est un cadre yi yëkkati na ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne tey ndogal lu bàyyeekoo ci biir tribunal bu Dakar te mu daal di ñëw dëggal ndogal lu bàyyeekoo woon ca Ziguinchor ne loolee. dina daal di may président Ousmane Sonko mu daal di ci élection présidentielle 2024 ñi jëm ci réewu Sénégal. ndax né décision Bobé Baye ko ci biir tribunal bu Dakar ab décision bu exécutoire la manam ab ndogal bu ñu war a la ci saa si né tamit recours bi nga xamné né avocat état bi nee nañ dinañ ko déposer né recours Bobé, recours bu suspensif la ab recours bi xaarandi la par rapport ak ndogal li nga xamné ne dafa bàyyi ko ci biir tribunal bu Dakar. Nous ñu war ko jëfé ci ne li ni mel la dal di sukkandiku né di président Ousmane Sonko da war bokku té par la force ci élection présidentielle 2024 yi jëm Sénégal Né ndogal bayé ko ci biir tribunal bu Dakar nag daal nay jox ndam réewu Sénégal ci kaw état bu Sénégal ak état bu France ndax né ñaar ñoñé ñom fait di instrumentaliser justice di jàpp ay nit arbitrairement te loolee teewul tey réewu Sénégal daal di nay am ndam seen kaw ne sëgëm ñaari weer nag moom moo des ñu daal di amal ay élection réew mi di Sénégal ne lu war état bu Sénégal mooy ñu daal di bàyyi kii di président Ousmane Sonko daal di koy libéré ci kaso bu mu nekk ngir kookee daal di waajal élection présidentielle 2024 yi ñu jëm ne relation kii di président Ousmane Sonko ak askanu Sénégal moom mooy que ne kii di président Ousmane Sonko daa wane ne tuuti que ne daa bëgg Sénégal askan bi wan ko dinañ la gën a bëgg ndax li nga bëgg suñu réew te ne homme politique bu demee ba askanam bëgg ko woolu ko am espoir ci moom néew na lool askan bi daal di koy bàyyi te kookee waru leen. ne relation boobee nag la kii di président Ousmane Sonko am ak sénégalais yi ne li ni mel moom moo tax mu ne pour éliminer kii président Ousmane Sonko ci réewu Sénégal loolee dina jafe lool. kàddu yi ni mel la kii di Juan Branco daal di yëkkati daal di koy jëmale ci décision de justice bu bàyyeekoo ci biir tribunal bu Dakar. abonnez vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça su ne